Thank you. asalaamaaleykum mbokk internet yu Sebuloo TV xanaa rek di dikk di leen nuyu ci actualité yi nga xam ne ñoom ñoo gën a fës ci bésub tey jii ñu fas yéene ko dooree ak ki nga xam ne nii moom mooy wuyoo ci turu Bamba Fall moom Bamba Fall fu ñu ko waxee rek xel dem ci maire bu Médina moom moomee la ñuy wax ndax moom Bamba Fall la mu def moom moo dina rek ci ab meeting boo xam ne ni ki barki démb ca lañ ko invité fa la dem daal daal di fa yëkkati ay kàddu yoo xam ne ñii di site internet yi ak yeneen ci ay kër yoo xam ne rek dañuy tasum xibaar ñoom dañu ko daal di partagé moom Bamba Fall la mu wax ci interview nee Dal, daal moom la mu doon def ci bu njëkk maanaam di def opposition républicaine loolee da koy teg ci suuf maanaam daal daawul njoos wala sax muy xusi benn yoon ñii di nguur nee na loolee daal da koy teg ci suuf daal di commencé li nga xam ne nii nag moom moo opposition radicale maanaam dina ko mettil ba mu metti ba rek fu mu ko xam mu jëm ak moom moom moomee nag di Bamba Fall ba ci ay xam mu nerek di xamle ne rek ci boobule combat mu bëgg mëne dal dina ci fekk ci ki di khalifa sall bok ci opposant yi naka noné tam ki di ousmane sonko dal dina lëkkaloo ak ñom ngir rek dal di amal xexam bi nga xamne da ko bëgg xex lu ni mel sax ci lam ko tek bokku na ci rek neena dal ñi di nguur dal def ñu dudur tànc ko manam dañu rek gakkal wala sax ñu baña amal li nga xamne ni mom modi ay projet yi mu bëgg amal ci fi nga xamne ni mom modi ci medina gi di gox bi nga xamne mom la jité mom Bamba Fall nak lamu mu ca xamle bokk na ci ay projet yu bari yoo xam ne rek jot na koo teg ñu bañal ko ko waaye tamit ñu koy koñe ci ay yenn yoo xam ne rek su ko bu ne dina baax ci askan bi nga xam ñoom la wala sax nak mu indil ko ay voix bu baax a baax ca fam di Medina ba tax tam wax na ci li nga xam ne nii rek moom moo ci terrain ba ne ca jaraaf terrain jaraaf boobee nekk ca Medina nak mom Bamba Fall lamu mu ca wax bokk na ci rek ku ci bëgg daal li nga xam ne rek ak moom bu ko defee fenn te bu nel Fang dang dàng ci dëkk bi daa di koy woo ci lim gën a mëne mooy daal ngeen tase ta ci terrain bi wala sax ci mbedd mi daa di koy defante nee na daal moo ko gënal fuuf ñi nga xam ne moom moo di waay politique yi nga xam ne ñoom ñoo ne ca Medina di làqu ci ginnaaw ñi nga xam ni ñoom ñoo di ndaw ñi maanaam jeunesse bi di làqu ci seen ginnaaw ngir rek bëgg koo daaneel wala sax ñu koy defanteeg moom yenn yoo xam yu mën a la ci biir politique gi moom Bamba Fall la mu ca teg bokk na ci rek tiitul wala sax mu ragal benn yoon attaqué nguur wala sax mu bëgg defante ceeg nguur li mu nar waaye tam lu ni mel ni loolu daal ba mu ko yëkkatee mu mel ni ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi dañ ko caa soofantal ndax boo dee xool daal ñoom ca nañu ko déggee mooy ni Bamba Fall dafa dem ba xamatul fa mu jëm mu bëgg a dellu fa mu jóge woon waaye lu ni dafa rek daal di yéex torop ci ni mu ko defee ndax bu ñu fàttalikoo ñoom nee nañ daal ñoom internet yi ci jamono yi weesu dañu ko cee soxla woon lool ah, te taxawul benn yoon ci wetu ñi nga xam ne ñoom ñoo di population bi ci loolee tam ñoom ñenn ci internet bi lañ lañu ca yokk bokk na ci rek ne Bamba Fall mësuleen a faale xanaa kay dafa xam ne mënul am dara ci nguur moo tax mu bëgg rangé waat opposition bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy kujje gi ndax rek bu élection yi dikkee mu mën a am dara foofee nag lañ leen di tënkale boobu information di leen jox dig dajee niki ci kanam ak yeneen information